مفاتح البسر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم سنة مفاتح البسر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم سنة asalaamaaleykum wa mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox ñëpp ku nekk seen wàccuwaay te di leen wax welcome ñu ngi nag ci Saint Louis Missouri incha allah fii lañ fas yéene def ñaari rakk yi tey nag dañ leen fas woon liggéey bi nga xam ne moom lañ fiy dalmal dawam naam sax commencé nañ ko depuis ci suba waaye dafa am loo xam ne nii mun a ñàkk foog ñu wan leen ko ah, dañoo ñëwantee nag doxoon si di seet si soxna yi nan la ñuy toogee ak nan la nekkee ci liggéey bi ah, su ko defee suñu leen gisee woon leen liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko ciy def danañ suñ fa jógee incha allah dem si ñeneen waaye fii ñu nekk nii mooy kër soxna Seynabou Niang ah, dina leen fi dugg si biir seet la ñuy def ci liggéey bi te ñu tàllal leen micro bi wax dëgg yàlla ñoom it ñu présenté wu ñuy ay jàmbaar nag lool nekk ci liggéey bi sonn ci lool nag def ci seen ñaq def ci seen alal def ci seen coono bàyyi seen yitte yëpp te xam naa ne sëñ Tuubaa tax ñu bàyyi ko te ki nga ko defal kooku moom ñëmul boor te incha allah rabi dañ leen ko fay ba rafet sëkk kon donc bisimilah dugg ci biir xool liggéey bi incha allah rabi. donc euh, fii la soxna yi di wax dëgg yàlla nekkee ci liggéey bi euh, soo leen xoolee ni ngi nii euh, di defar li nga xam ne mooy xew li jëm ci suba incha allah rabi fii nag ñu ngi fekk soxna Seynabou Niang ak soxna Mama Guissé ñi ay mbokk taalibe yoo xam ne nii wax dëgg yàlla euh, ay taalibe yoo xam ne kenn du leen présenté fii ci dëkk bi euh, nekk ci liggéey bi di ci liggéey bu liggéey bu rafet liggéey bu mucc ayib lool. Euh, ma jox léegi soxna Seynabou mu nuyoo rek sànni ci kàddu yi gàtt gàtt gàtt incha allah rabbi soxna Seynabou. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di ñu bëgg rek ngeen wax ñu tey jii lan ngeen ci lan ngeen nekk nii. maanaam ci liggéey beeg yooyu daal. incha allah asalaamaaleykum wa xanaa di nuyoo rek di sant di fas yéene li nekk ci liggéey sëñ bi rek luñ ci mën ak luñ ci mënul rek ñu ngi jéem lu ñu mën yàlla nañu yàlla may ñu fekkee te eggalee suñu sago ñu teew ko déwén yi bare bare bari waa ñu ngi ci mbir mi nag fi ne nii waa ñu ngi ci defar bi maanaam yooyu rek di sant rek sëñ bi yàlla na yàlla dolli jàmm ak xéewal barke Xaadima Moustapha kontaan nañ soxna bi soxna si kontaan nañ bu baax li nga wax rafet nag kenn mënu koo dindi effectivement liggéey Sëñ Tuubaa ci lañ leen xam nag mosu ci jug te yéen a ci saa su ne di ci def li ngeen mën ak lu ngeen mënul ni ma ko waxee ci mbedd mi di ci def seen alal ak seen doole seen coono ak seen lépp léegi nag kii kenn ki nekk ni toog fi mooy soxna Maama Gisee xaaral ma laaj ko moom tamit rek am ah, sànni ci ay kàddu yu gàtt ci liggéeyu Sëñ Tuubaa gi mu nekk nii di ko def bisimilah soxna Maama. <laughs> asalaamaaleykum. waa ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant waa tey nag dañu nekk ci préparatif yi pour reeru suba yeeg togg gi daal dëgg yàlla at bu ne ñu ngi koy def nag te jigéediw ñu ñu ngi ñaan yàlla rek liñ ci liñ ci sonn yàlla nañu ko sëriñ bi fay maa ngi nuyu ñëpp di fay ñëpp jërëjëf. kàddu yu rafet na lool te sell na it ah, jërë ngeen jëf soxna yi. Ah, moom loolu moom bu leen ci am benn benn benn benn benn benn benn benn xel ñaar incha allah rabbi sëñ bi moom dina leen fay ba ngeen bëgg lool Euh, kon boog ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen mas di leen mas di leen masawu ci coono yi te wax dëgg yàlla di ñaan yàlla suñu borom li ngeen di liggéey ni yàlla na ci yàlla def barke te yàlla bu leen ci am benn coono coono bi ngeen ci am yàlla coono yi bàyyi neex te incha allahu rabi euh, sëñ ji bi gis nga lii yëpp ci soo ko xoolee sa sa ndeyjoor it maanaam daal yëpp ci ndaw li la bokk te ñoom ñaar ñi fas yéene nañ ko liggéey incha allah rabi ci guddi gi kon bokk euh, vraiment masa coono soxna yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi kon euh, ñu yëgale liggéey bi rek euh, ba ñu paree fële ci kër soxna Seynabou Niang euh, léegi nag egsi nañ fii kër soxna Rama Diouf ñu fas yéene dugg ci biir seet mbokk taalibe nag lañ nekkee ci liggéey bi kon bisimilah topp leen ma kon Diop ñu ngi lay ziar ana waa ana waa Dakar. ci ay kaddu. Euh, muy soxna soo xam ne ndeysaan euh, macha allah rabbi yal na yàlla defal cat li muy liggéey sëñ Tuubaa fii ñëpp gis nañ ko taxawaayam rafet na trop ci daara ji taxawaayam rafet tamit ci mbokk julli ji ci mbokk taari bi fii yëpp euh, soxna ma kon boog ñu ngi nii nag ci préparation ñaari bàkke yi donc ñu ngi ci liggéey bi di ñaan yàlla ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahiim yeggale ko si alhamdulilah rabbil alamin di ñaan ñu dund fan may ñu wér su ati ati ati at yu bari donc ñu ngi sant waa Saint-Louis yëpp di sant waa diaspora bi yëpp. macha allah taxawaay bi ñu taxaw si ñaari rànka yi ñu ngi koy rafet lool di leen ñaan yàlla na yàlla yokk lu ci lu ci waay def ren. yàlla nga ko man déwén te di ko mën ay ati ati at yàlla nañu fi yàlla yàggal may ñu gudd fan may ñu wér sàmmuñu yàggal suñu daayira bi ñu ñaan yàlla nag ba heure da allah ñu am suñu kër Sëriñ Touba ñu ngi jaajëfal ñëpp su barki Sëriñ Touba jërëjëf. waaw ci kàddu yi ñun nag dañoo am xéwal bu rëy fii ndax dañoo am suñu suñu yaay Fall bu fi nekk di yaay gone yi ci biir Sénégal ñu toll ci événement bi waaw ngeen gis ko nii mu nekk ci liggéey bi léegi rek ma ngi koy laaj naan ko yaa booy da ngay nekk ci liggéey bi mu ne ma ah ku dem ci tool yi ñuy peese nga taxaw yaakaar naa ne si nit ñi di fayoo ko doo fayoo moom nag euh, suñu mbokku taalibe euh, ñu jox ko rek mu daal di ci barkelu ci ay kàddu incha allah rabbi bisimilah. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. seen tur ak seen sant. waaw loolu baax na yaay loolu baax na. ndeysaan maa ngi ciy wax tuuti rek. lu bari nag. may sant yàlla di julli ci yoon di sant Serigne Touba. yaay tegal ba nga pare. waaw baax na baax na loolu baax na. maa ngi sant yàlla di sant yonent bi sant Serigne Touba. nga xam ne rama nii lay mën a mel ak i magam. ndax man mi saa baay. dafa taal ci seen ci seen maam si Anta Mbakke la la yébbal woon. di ko liggéeyal di ko jox ñun ñëpp ñu judd ci. xamuñu lu waa waa waa Daaru Salaam. xamuñu maam si di Anta. ak ak njabootam. ak ba mu baaj ba boole ñu sëñ Baara Touré moom moom sëñ sëñ Baara Touré jëlbaatam. muy li ñu ànd sama baay ànd ak liggéey sëñ maam si di Anta. sëñ Tuubaa ma judd ci yaru ci. màgg ci xamuñu wuti alal xamuñu wutoon dërëm sama baay di daan béy ba mu ñor mu boolang ñax maak ngooñ maak gi tàngal yëpp yëpp maam Cheikh Anta ba mu ba ba yàlla defal mu wàcc bi liggéey ay téere la fi bàyyi bàyyiwu fi alal ñu ko ba ko fay njaboot bi kon nag sant naa leen yéen waa seeli bi gi ñoo sant xel di góor ak jigéen mag ak ndaw ñu dox dëgg yàlla teeru ma ma fi ñëwee teeru nañ ma teral ma defal ma teraanga defal ma lépp kon nag lu ñu man leen yal nañu mën ko yal na leen ah, maam Sidi am Maxtaar borom gaawaan jàppale jàppale ci liggéey bi ak ak xaadima suuf sunu yaakaar tey yàlla buñ jàq yàlla buñ jàq jërë ngeen jëf kontaan naa jërëjëf yaay kàddu yu rafet la lool te tegu na wi nag tegu tegu ci yoon lool ñu ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax wax dëgg yàlla ah, lii rek lañ ci doon wut lii lañ ci doon sakku di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla tas barke bi ci mbokk bi yëpp. Euh, man vraiment seen taxawaay rafet na yow te ñu ngi lay ñaanal bu fan ak wér. ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi yàlla yàlla yëgale yéen ñëpp. waaw soxna Ndeye Amy nag moom xam naa ne moom ay kàddu dina néew lool waaye di ñàkk moom la barke bi rek. xam naa day moom moom moom nañ ko nañ ko kii rek mu daal di ci sànni yu tuuti tuuti te baax. asalaamaaleykum. sallam sant sëñ bu baax ñu ngi ñaan si euh, ñaari ràkk yi luñ fi fas yéene luñ fi def ak luñ fi bëgg yëpp yal nañ ko yàlla defal si barke Seydina Muhammad si barke sëñ Tuubaa <laughs> loolu laa doon am lu may wax maa koy jërëjëf asalaamaaleykum waaw jërëjëf soxna Dali kàddu yi rafet na tegg nañu lool macha allah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Euh, di leen mos coono nag ci liggéey bi ngeen nekk nii waaye ñun wér nañ ne xam na xam nañ ne xam ngeen ngeen koy defal te macha allah bis bu leen fay rek di ngeen kontaan yàlla ñu daje ngërëmam te yàlla ñu daje payam loo xam ne ne ak yàlla soppi bànneex ci ñoom si yàlla wasaare leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen masawu coono te wax dëgg yàlla leen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon mbokk ñu ngi wéyal liggéey bi ba ñu ginnaaw bu ñu jógee kër soxna Sey ak kër soxna Rama xool soxna yi ni ñu toggee ci wàllu togg yeeg yooyu ah, dañoo egsi fii nag si suñu mbokk taalibe sëñ Sidi Guèye ah, ñu ñëw fi nag fekk fi sëñ Afe ak sëñ Xaadim Busu Euh, ñoom ñëpp nag wax dëgg yàlla ñëw jëmal bés bi incha allah rabbi euh, xam naa duñ def dara lu jox sañ Sidi kàddu yi su ko defee moom it mu vraiment soññ ñu wax ci bés bi incha allah rabbi sëñ Sidi salaamaaleykum wa a aouzu billahi mina sheytaani rajim wa inni auzuha bika wa suriyataha mina sheytaani rajim rabbi auzu bika min amazati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xaddimihi wa ummatihi wa sallim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baal wàqte di leen ko baal di leen jéggalu di leen déggal di ñaan yàlla suñu borom ci baaxam ci kàttanam mu jéggal ñu yërëm ñu ci barki Cheikhul Khadim Cheikh naa Ahmad Bamba Khadim Rasoul kon ni ko Cheikhu naa waxee rek kon ñu ngi fii tey nekk fii ci Saint-Louis Missouri di waajal bis bu mag boobu di ñaari rakk yi suba incha allah ñu ñëwwoon fii nag tey jaar fii ci daare ji euh, suñuy suñuy kilifa suñuy sëriñ nekk fii di sëñ Afe Ñang boo xam ne kenn dootu ko présenté ci yoonu murit ak euh, imaam Khadim Bousso ñi nga xam ne mooy imaamu Euh, mbokki taalibe yi nekk ci Amérique gi yëpp féete fee gox bi ñuy wax New York ñoom nag ñu nekkoon ci daara ji tey ñu bëggoon leen rek euh, taataan ci ñoom ay kàddu ay kàddu yu soññee ay kàddu yoo xam ne dañ koy tijjee ngir euh, dayoo bis bi ndax jàpp naa ne bisub suba bi jàpp naa ne lépp luñ am tey ak ëllëg ci bis bi lañ ko am kon muy bisub ñaari rakk yi ba sëriñ bi taxawu woon ca bureau ba ca julli ko fa ci kanamu gouverneur général ak conseil privé boobu muy bis boo xam ne tey bu lislaam taxawee bu lislaam siggee bu lislaam amee ndam ak fépp fu mu mën a doon ci àdduna jàpp naa ne man te loolu laa gëm ne bis boobu ko waral kon du ñu def lu ah, doxantu rek ah, wàcc ba ci suñ sang si baax si jox leen ah, ñu taataan ci ñoom ay kàddu soññe muy kàddu yoo xam ne moom lañuy ñu tijjee incha allahu rabbi kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon jërëjëf sëñ Bamba waaw euh, si di kàddu yu rafet na te wax dëgg yàlla teggane wu na ñu sant bu baax di la gërëm ci say euh, introduction bu rafet euh, comme nu mu ko waxee rek léegi dañuy ànd wàcc ci suuf su ko defee ñu fekk fa sang yi sëñ Afi Ñang ak sëñ Xarim Bousso su ko defee ñuy woyal liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon mbokki jullit mbokki taalibe yi comme niñ leen ko waxee woon rek kon dañoo nekk fii ak suñu kilifa di sëriñ Xaafi Ñang ak. mu nekk ak ñun ñëw ci bis bi ak Serigne Khadim Bousso imam moom lañ nekkal nii ñu bëggoon rek jox leen ñu sànn ci ay kàddu ay kàddu soññe ci bis bi bu ko defee ñu soog a wéyale kon sëñ Afi bisimilah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina walana muhammadin al amin wa ala wa ashaabihi altayibin altahirin wa man ittabaahum bi ihsaan ilaa diin jërëjëf sëñ Sidi bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ni ko sëñ Sidi waxee ñu ngi fii ci Saint-Louis Missouri di waajal màggal gi nga xam ne dañ koy def ngir fàttaliku xew-xew bu mag bopp lislaam bopp yoonu murit bu amoon ca Saint-Louis bu bu ga ca Sénégal muy le 5 septembre 1895 jamono ya nga xamee ne euh, tubaab yi ñu ngi teewal sëriñ bu mag bi ca bureau gouverneur di wax ne dañ koy atte te bi euh, ku baax ka dikkee ca barab ba la mu njëkk a def mooy julli ñaari rakka door toog ca jataay ba Eh, muy nag xew-xew bu mag a mag boo xam ne ay bokki jullit di ay bokki taalibe yu féete woon ca ndar eh, ñoo ko doon màggal boobaak léegi mat nay at ngir di fàttaliku xew-xew ba ak liñ ci mën a jàng ci ay bind yàlla dogal fii ci États-Unis am dëkk bu ñuy wax Saint-Louis boo xam ne français yi ñoo ko sancoon eh, donte mujj na delluwaat ci loxoy anglais yi ba seeni jeexit rek fi des ñu gis ne comme tubaab yi nekkoon Saint-Louis ga ca Sénégal ñoo sancoon tam Saint-Louis gi ci Missouri ci États-Unis euh, te euh, lañ doon yéene ci sëriñ bu mag bi loola euh, dafa këpp ci seen kaw yéene ji dafa këpp ci seen kaw lislaam dund jëm kaw ñoom lañ doon fexe muy nasaxal lislaam ak euh, fay woote Serigne Touba loola moom yàlla àndu ca ba Serigne Touba tukki dellusiwaat ci jàmm yëkkati lislaam yëkkati ay lislaam lislaam jooje dund ca Saint-Louis ga ca Sénégal na mu dundee ci mbooleem dëkki Sénégal yépp yàlla dogalit ay bokki taalibe ñëw fii ci Saint-Louis gii ci États-Unis ñoom it takku bu baax a baax di fi dundal lislaam di fi dundal itam seenu taalibe di fi liggéey Serigne Touba euh, nga xam ne kon ndam loole am ca Sénégal itam ñëw na ba fii ñoom itam ñuy jël seen wàll ci màggal bis bi saa bu 5 septembre ñëwee ñoom ñëpp ñu àndandoo ñoom waa dëkk bi ak bokki taalibe yi ne ci États-Unis ñi mën a ñëw ñëpp ñëw ñuy dundal bis bi ci ni ko yàlla bëggee ci jàng alquran jàng ay xasida def ay waxtaani diine euh, fàttaliku bind yi nga xam ne mën nañ ko jëlee ci xew-xew boobu muy lu am solo loo xam ne bu ñu ko tàmbalee defar rek léegi mën na ayaat te ñu ngi koy def ci ndigal muy ndigalul Cheikh Mouhamadou Mourtada euh, mi nga xam ne moo euh, soññu taalibe yi ci biti yëpp nos leen teg leen ci yoon woo xam ne danañ ci mën a sàmm seen diine sàmm ci seenu taalibe euh, moo leen digaloon bis bii ñu di ko dundal di ko màggal fii ci Saint-Louis Missouri ndigal loolu tam ñu ngi koy def ci nam gën a rafete ba loolu moo tax moom la ñuy waajal suba incha allah taala ngir parce que noonu lañu ko daan defee sëriñ Mourtada daf leen boole woon ak sëriñ Bachirou Lo imaam nga xam ne moo nekkoon New York mu digaloon leen mu dig waxoon ne saa bu jotee na ñëw jiite ko yàlla dogal na liggéey jiite na ko diir lu mu nekk foofu ba ni mu delloo Sénégal sëñ xaadim mi nga xam ne moo ko wuutu sëñ xaadim Bousso imaam mi nekk New York itam yàlla dogal na ren ji ñëw na war a jiite xew-xew bi parce que yéen taxaw ko sëriñ Bachir loo daan taxawoo loolu tam di lu bees lu am solo lu ci am lu xam ne dana joxaat xew-xew bi beneen dayoo incha allahu taala kon nag ñun ñëpp nañ ko bokk waajal eh, parce que dundal eh, di ñaan yàlla dundal ci lislaam dundal ci yoonu murit fii ci réew mi eh, ba di sëriñ Tuubaa yéene woon ci ab wooteem tasaaroo ci àdduna sépp ba ñëpp jariñu ci euh, loola xeexoo bi euh, dox ca ay jéego yu koy sottal ci barke Sëriñ kon loolu xëy na mooy kàddu yi ñu ci bëggoon a sànni di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf sëñ Afe kàddu yi leer na matale na sant nañ bu baax ñang di ñaan yàlla suñu borom euh, yóbbuñu ci jàmm ak salaam di fekk ko te tal ko te defee ni ko Cheikhul Khadim bëgge di sant bu baax ña di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom ci baaxam ci kàttanam it mu yàggal sa taxawaay may la gudd fan may la wér ba li ngay liggéeyal lislaam lépp ak li nga ci bëgg ak li nga ci yéene lépp nga matale ko bi jaay Cheikhul Khadim Khadim Rasul xanaa rek bëggoon na sëñ Khadim euh, sànni ci moom it ay kàddu yu gàtt rek balaa balaa ñëw balaa ñoo àgg ci bis bi incha allah comme ni ko sëñ Afe waxee. Euh, sëñ Moutalla bi mu ñu ci joxee ndigal euh, daf ñoo boole woon ak sëriñ Basirou mu di ko jiite ba sëriñ Basirou noonu liggéey mate mu dellu Sénégal euh, sëñ Xaadim nag yàgg nañoo bëgg teewaayam waaye nag xam naa ren ji la ko suñu borom dogal lan la suñu borom dogal mu teew ci bis bi kon nag di àggale rek liggéey bi nga xamante ne sëñ Moutalla joxoon na ko sëñ Basirou sëñ Basirou loo moom incha allah mu àggale ko. ci barki Cheikhul Khadim kon suñu Khadim euh, ñu ngi jéggul rek nga sànni ci tuuti rek bu ko defee ñu wóoye la bu neex laa aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax a baax rawatina waa Saint-Louis gi nga xam te ni ci Missouri di am mbégte lool ci teewe xew-xew màgg bi nga xam ci xew-xewi lislaam yi la bokk ndax lépp loo xam te ni ku baax defoon na ko rek dana euh, nekk barke ñu di ko fàttaliku rawat na nag di koy fàttalikoo ci barab yu mel nii nga xam te ni sori na lool waaye loolu lépp ab junjam la woon rek boo xam te ni junj na ko ay yoon ci ay ci ay mbindam ak yoo xam di sant bu baax bi ñu fekkee suñu kilifa suñu xarit suñu mag suñu lépp sëriñ Afiya ñang mi nga xamante ni suñu sëriñ la suñu lépp la di boroom xam-xam boo xamante ni moom it Cheikh Mouhamadul Moutada ci junjam ak gis-gisam bu sori moo ko boole woon ak waa dëkk bi ci ñu ma bëgg di bëgg ñu jariñu ci moom ak ci xam-xamam ak ci njàngaleem mu mel ni képp ko bàyyi xel rek di jàng ci moom ak di gëstu ci moom ak tamit di ko toppatoo daanaka kon yaa ngi jëfee ndigalul doomi Sëriñ Tuubaa kon nag bu ñu ko fekkee fii jataay bi mën nañ ni moom mooy kilifa jataay bi ci wàllug mbokk ak ci wàllu xam ci wàllug mag kon ñu ngi koy jox cëram bi moom lool di ko ñaanal suñu boroom dolli ko wér dolli ko fan gudd ba lim liggéey li muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee te ànd ci ak sagoom kon xam naa ni kon kàddu yooyu lañ ci amoon luñ ci wax rek di jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf suñu xaadim sant nañ bu baax kàddu yi mën na sëkk kon nag xam naa ni mbokk taalibe yi mbokk jullit ah, foofu la ñuy yemale géen suba incha allahu rabbi yan yàlla suñu borom yóbbu ñu ci jàmm te ñu fekk te tal te daje cee ngërëmal Cheikhul ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.